ñu nekk frontière u Tivaouane ak Kër Massar ma xool fii gis fi ay ciment ki béton ki kër dong te ñu ni suñu réew dafa bëgg a moom boppam mënal boppam ci mbirum mbay suñu réew dafa war dundal askanam grâce à mbay mi te lépp li nga xam ni moom moo doon tax loolu ñu mën ci egsi ñi fi nekk ak li fiy doxee ça jure d'avec ça fii ñu ne askan wiñ fi taseel dañu mer dañu jaaxle dañu sonn parce que urbanisation bi fi ne dañ koy def au détriment de ñoom liñ dundoo liñ daan cosaanoo mooy mbay tey baykat yi seen suuf nangu nañ ko baykat mi amatuñu ndox mais surtout li gën a garaaw mooy dañoo yoratul lu ñu liggéey parce que li ñu xamoon muy seen cosaan di mbay ak napp amatu fi mbay mi nga xam ni nag moo doon cëslaayu ñi fi nekk nërmeelu na léegi Sénégal bu njëkk da daan exporter produit maraîcher bay exporter fleur ak fraise tey seen suuf sépp gars yi nangu nañ ko def koy kër te ñu ni nag ñun dañu bëgg a développer suñu réew dañu bëgg bay dunde bay dundal bay jëriñ noo koy defee lii c'est cette contradiction que Khalifa Sall président de la République fas yéene faj fexe ba mbay nag doon activité boo xam ni day dundal askan wi mais surtout askan wi da ciy dunde mais askan wi da ciy jëriñ xam nga li réew yëpp xewil léegi mooy bay rek jaay ñi fiy def haricot ñi fiy def tomate dañ ciy jaay mais dañ ciy jëriñu dañ ciy dund loolu moo fi tumburank xalifa Sall président la République mooy mbay mi dana dellu si dañuy réconcilier urbanisation ak vie économique te réew nag soo bëggee mu développé da ngay répartir activités yi ñiy mbay am fu ñu bayee ñiy sàmm am fu ñuy sàmme ñiy napp am lu ñu nappe Khalifa Sall président de la dana fexe ba région du Cap Vert Cap Vertaat Cap bi ver ver ci fore ver ci mbay vert ci napp maa ngi dee li gërëm leen sax